يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم مكوي سنغال mi ngi bëgg a tas ndax jikko yu ñaaw te amuñu or amuñu pétrole waaye am nañu lu ko gën te mooy jikko te réew suñu demee ba kenn wóolootul sa moroom àddina tukki te réew mi ñu ngi ñu ngi caaxaane lu garaaw xam nga mooy lan mooy gor soo nuyu sax doo ñeme wax xam nga lu tax enregistrement ku la nuyu nga enregistré ko ñaar dafa xaraam jëw dafa xaraam enregistré kuy jëw dafa xaraam ñaar yu araam la jëw dafa xaraam di wax ak sa nawle gor di ko enregistré a tasaare ko du wàllu gor te réew mi loolu koy bëgg a yàq benn waay daa ñëw wan ma ma kilifa gu ñu enregistré ba pare ma ne ko man it enregistré nga ma waaye ndokk mu ne ma pourtant enregistré wu ma la ma ne ko bi ngay enregistré kii yëgu ko boo maytul bi nga ma ne nanga def ma ne la maa ngi fi sax bës nga sa téléphone gor yi gor yi yëpp a jaaxle nañu bàyyi loolu du jëfu jullit yàlla nee na wala tajassasu bul dugg nit di jéem a xam li muy wax ak li muy def nga génn di ko siiwal kenn du wax ak kilifa te lum la wax nga tas ko ci mbedd njort lu ñaaw wax lu ñaaw sa nawle gor nañu ko bàyyi te waxante lu rafet wa qulu linnaasi xusna nañu waxante lu rafet nañu waxante lu rafet loolu la senegal xam loolu la senegal am te bàyyi waxante lu ñaaw bokk yi nañ ko bàyyi